Euh, asalaamaaleykum euh, mbokku téléspectateurs yi safo jàmm ji info jàmm ji info point net tey dellusiwaat ci beneen euh, rubrique ci beneen actualité di wax rek ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un buñ ko waxee rek tey mu mel ni mën nañ ne lu mag tey bàyyeekoo na tey ci mën nañ wax mag islamique tey moom la ñuy wax tamit bokku tey ci nga xamante ni tey ci yoonu murit di sëriñ atu Diagne mi nga xam ne moo jiitewal li nga xam ne boppu kuréelu isbu tarxiya gis nañ liggéey yu am am solo yoo xam ni liggéeyal na ko li nga xam umma islamique la ñuy wax parce que tam euh, lu ci bari bari euh, euh, à travers international yaakaar naa kenn dootu ko lam-lamee mboolem ëtt kër tey ku ñëw daa nga gis tey ni muy saafonteeg tey ñi nga xam ne ci ndigalu sëriñ bay toog tey nekkal fi sëriñ Touba da nga gis mu taxaw ci ay jéego yu am am solo kon nag duñu sori ci ligne bi dañuy ànd ak ki nga xamante ni moo di Amadou gay Ndiaye di président sous commission ENTIC comité d'organisation bu Magal Touba Ahmadou Gueye yaa ngi ci ligne bi rek di la maaleykum salaam wa rahmatulah maa ngi lay nuyu bu baax Mamadou Lamine. jaajëf waa kay Amadou fi muy jëm directement rek mu mel ni tey yaakaar naa ne xew-xew bi ñun ñëw ko yëgandoo ba ñu yeewoo rek yëgandoo ko rek ki nga xamante rek moo di euh, sëriñ atu Diagne mi nga xamante ni euh, rek nekkoon ci bopp kuréelu tarax Tarqiyyah waaye yow tamit nga nekk koo xamante ni war nga ñu ci mën a indil lu bare bare ci côté témoignage ndax tam euh, yàgg nga yàgg nga tamit di liggéeyal tam ci yoon wi waaye nekk ci wàllu commission d'organisation Magal Touba. waaw effectivement tey moom dafa nekk euh, bis bu tiis a tiis tiis ci euh, ñi nga xamante ni nii tey ji ñu ngi leen di woowee euh, maanaam sax ay nit ñoo xam ne dañoo bëgg lu baax. Mm-hmm. parce que d'abord bëgg lu baax mooy tax nga mën a reconnaître valeur doomu aadama bi. Mm-hmm. Atou Diagne dafay référence dafay référence ci jeunesse. sénégalaise ndax universitaire la ku jaar université ci jàng yu kawe yi borom borom borom xam-xam la. Mhm. borom diplôme yu mag a mag a mag la. waaye terewul tey jii dafa ko ay interprétation mais da ko matérialiser. Mhm. ndax euh, li tax mu matérialiser ko mooy tey jii bu ñu waxee kuréel Hizbut Tarqiyyah xel yëpp lay dem ci Atou Diagne. bu ñu gisee sax ku sol bàyyi laat sax xel yi day demaat ci Atou Diagne mhm. bu ñu dégloo jàng xasida yi xel yi day demaat ci Atou Diagne donte loolu yëpp lenn lu ne daf ko fi fekk ndax bàyyi laat yi da ko fi fekk si du laat la moom moo ko daan sol doomu sëñ Touba dox mhm. leen ci ndigal euh, xasida yi sëñ Touba moo ko bind mag ñi daan ko jàng moom it mu fekkee ko daal di ci moom it mu fekk ci ko daal di koy gën a tëddaat ni ko jamono gënee bëgg ndax ay jamono avant ay tey xasida di egg egg ay MP3 ay MP4. Mhm. di nekk si internet di dem ay téléphone mhm. mun nañu wax ni joué na ci rôle bu ama am solo ci wàllu vulgarisation. ci wàllu njàngaleem Sëñ Tuubaa. nekk ci koo xamante nii rek durant ñu xam ko ndax am na ay nataalam yoo xam ne mu ngi circulé en dix neuf cent soixante treize soixante seize. bi sëñ Blaat ñëwee Dakar ndeysaan mu takk ndigam te boobu yëpp mi ngi nekk universitaire. kon ça veut dire ni wane na ni wane na décomplexé dafa décomplexé nit. Mhm. Atou Diagne dafa décomplexé nit. ndax li tax mu décomplexé nit mooy niveau d'étude am supérieur. Mhm. vraiment àgg na foo xamante ni tey jii ko fa àgg. mën nga créer benn signe d'infériorité et de supériorité sa digganteeg nit ñi. Mhm. waaye moom ba mu jàngee la mu jàng ba pare daa xam ne li gën a am solo nekkul jëmmam waaye nit ñi la mu jël lépp sukkandiku ko ci jàngale sëñ Tuubaa nekk un fervent mouride jëflante ak ay ñu baree bari moo xam waa Amérique la moo xam waa Afrique la moo xam aussi waa Sénégal la fexe ba nga xamante ne nii dans la constance nit ñi ñu ndaw ñi ñu ngi jëm di dugg ci lu baax dans ak démonstration culturelle d'une croyance et dans la piété ci wàllu ngëm tey jii wane na ko mosu cee sonn comme niñ koy waxee dafa am ay cheikh par la voie spirituelle mais dama aussi am ay cheikh par la voie matérielle mhm. ndax benn matériel ngay gis araamul ni koy jëfandikoo doo ngay mais tey bu ñu waxee dans la communication dans la communication de la première télévision IP du Sénégal Atou Diagne daf ci def tànk ba mu taxaw. wallaahi bu ñu xoolee kuréelu Hizbut Tarqiyyah y' a des milliers et milliers de membres. mais ñoom ñëpp fexe nañ bay ndox ci benn logique ak benn fondement muy la philosophie de Cheikh Ahmadou Bamba. Mm-hmm. Atou am na tawféexu jamonoy Serigne am na tawféexu jamonoy Serigne Abdoul Khadr jamonoy Serigne Salim musu ci taay. aatu am na taw féefu jaxasoo gaañu baax ni buñ ko doon considéré dañ koy considéré parmi les grandes figures du mouridisme surtout ci côté vingt et unième siècle wallaahi parce que bo ñëwee vingt et unième siècle mun nañu àndi ay ñoom Cheikh Abdoulaye Dieye ah mun nañu àndi de très grandes figures ay ñoom sëñ Sambay mhm. mais tey jii Atou Diagne est rentré dans l'empire et dans l'histoire des grands hommes mhm. dans les grandes communautés wallahi perte bu rëy rëy rëy la ndax bibliothèque la ndax it ba mu ciy yàgg di ci nekk di def ay grande exposition sur le mouridisme boobu comité d' organisation sax ak siwul fii wallahi wallahi sax ba tey jii mu initie ànd ak comité bi ñu initier les grandes expositions du mouridisme ñu jox ko ko ak waa isbu tarxiya ñu gis ni ci wàllu wàllu wàllu wàllu même prestation xaside yi fi mu ko teg ba tey jii ruq boo dem wala kër goo dem wala daayira boo dem ñu ngi jéem a roy gaa yi sax ci ni ñuy jànge wallaahi kon loolu man dama jàpp ne Atou Diagne monument la. yàlla nag mooy teg lu rëy mu rëy ci ñëpp waaye mu bind ku ko àttan ku tolloog loolu. dëgg la yan ko ko mi ngi mel ni ni cër yeeg ndomba tànk yi di doxee ci àdduna kenn ku ne da ngaa juddoon nekk liir nekk xale. ba nga juddoo nekk xale la ngay doon ëllëg yàlla rek moo ko xam. wallaay dëgg la wallaay yàlla yàlla di cërale ëllëg yàlla rek moo ko xam. waaye lu mu cërale nit lu ni toll rek. daa bind lu rëy. ba pare bind ko àttan loolu doxal ko. bien sûr. loolu moo tax ñu naan dans chaque enfant il y a un artiste. loolu nag dina mën a permettre li waraloon kilifa yi ak gaañu baax ñi di bëgg nga teral xale wala nga muñal xale wala nga ba a fitnaal xale ndax kenn ku ci nekk ci ñun jaar na ci. te la ngay doon ëllëg rek coobare suñu borom la. wallaay wallaay. moo tax mu ne dans chaque enfant il y a un artiste mais l' bi nga xam ne mooy ki gën ci artiste yi mooy ki nga xam ni teg na loo xam ne même bu demee ginnaawam danañ ko mën a pérenniser ba noppi la ca gën ci la mu def mooy mu nekk luy jëriñ humanité. njëriñ doomu aadama yi tey foo dem dans le monde bëri na ay kuréel euh, xasida bëri na ay kuréel isbu ya daayira yi bëri na les contributions solidaires. bëri na aussi seen quartier général bi nekk Touba bëri na ay membre ak ay sëy yu légal yu dagan yoo xam ne ñoom ci seen mbokk dem nañ bëri na ñoo xam ne seen njaboot fa la ñu soqee ko bëri na ñoo xam ne seen xam-xam fa la génnee bëri na ñoo xam ne seen njub ak seen dëgg àdduna fa la génnee bëri na ñoo xam ne seen jaayante ak seen gën a jàng Sëñ Touba surtout ci côté xam-xam fa la génnee alors formé na ay nit ñoo xamante ne nii ci philosophie jàngale sëñ Touba. Mhm. vraiment mënuñu def lu dul surtout sax projet bi ko sëñ bi mujjee dénk muy këru xaside yi nga xam ni këru xaside yi i mel ni genre maison boo xam ni bind sëñ Touba yi xaside yi ak lépp rek. ñu di ko taxawal nga xam ne ndeysaan ñu ngi ñaan ñu achevé ko ak jàmm ñu sonn ci def ci ay jéego tàmbale ko def ci itte def ci farlu def ci pastéef waaye noonu la musa mel ndax xalif boo xam ne jamonoonte naag moom rek moom itteem mooy dana la jox boppam jox la léppam jox ba làq sa ngërëm ku fi nekkit mu ànd ak yow kon tey jii ñun dañ ko war a jël comme benn icône maanaam jàngat ci jëmmam mhm. jàngat ci jëmmam du question ko affaire u kéemaan déedéet waaye affaire u pas la détermination. la dévotion ngëm. waaye nag ngëm bi gën ci ngëm ñi mooy bi ànd ak sagesse. macha allah ndax kenn dégg ko ci lenn loo ko mën a taqalee baa nga tuumaal ko wala nga wax ko lu ñaaw. Mm-hmm, mm-hmm. te yaakaar naa ne bu yàlla defee ci moom benn image bu junniy nit roy. ba ñaari junniy nit bëgg ak kilifa di la doyloo ba ci xalif général des mourides bi fi ne. ba ci le porte parole euh, Cheikh Bassirou Mbacke Abdoul Khadr kon yaakaar naa ni aussi ñun tamit li ñu teg suñu bët mérite ni ñu gën ko ñaanal ba pare fexe aussi mu nekk benn symbole fort pour les générations futures mu nekk un symbole fort de référence bu ñuy jàngale ne leen kat ñu mel ni jaaroon nañ fi demoon nañ ba ci biir université yi fa nga xam ne sax yaakaar nañ ne ko fa dugg philosophie yi ñu lay jàngal ak ak histoire yi ñu lay jàngal ak yeneen xeetu formation enseignement ñu lay jàngal de haut niveau mën na la yóbbu sax nga weddi sa bopp waaye ñoom da leen gën a dëgëral ñu gën a gëm seen bopp kon vraiment tiis la tey naqar la waaye nag ñu ngi sant yàlla ndax sunu borom képp ku mu dimbalee bind la ba bind la nga mën a dox ci yoon bu baax mën a sàkk lu baax ba liggéeyal ku baax ñun boo demee ëllëg dañuy refer njort tey tiit ci suñu bopp ndax ñun la nga am dinañ ko am te it gën a soññ suñu bopp te xam ne kon la nga fi doon li mu fi doon sonnee ak la taxoon musta tàyyi ak lu mu métti métti lu mu naaj naaj lu mu tàng tàng lingoom dalam itteem lépp mu joxoon ko en exclusivité pour servir le serviteur du prophète Mohammed muy Cheikhul Khadim Khadim Rasul mhm. kon yaakaar naa ni nag kon kenn ku ne lii day jàngale nit ki ki nga doon ak li nga doon amul solo wallaahi li nga ciy def moo am solo dëgg la tarkal jërëjëf. ci euh, nga doon ak li nga doon amul solo li nga ciy def rek a am solo. tabarkalla. Euh, ah, Ahmadou euh, xam nañu sa sa sa temps bariwul ndax tam ñu la ñu la xamit ci sa pastef à travers sax ci ligne bi lañ koy wax parce que xam nañ tout moment xalaatoon nañ sax dañoo dañoo am tawféexu sëriñ bi rek a tax xam naa ni tey ñu am la ndax boobu ba léegi sa jot bariwul fi may daaneel rek xam naa duñ la téye ci temps ligne bi lu baree bari ginnaaw tey tey ki nga xam ne tey muy sëriñ aatu Diagne tey wane na ginnaaw tey tey sëriñ Tuubaa ba wàcc tey loolu la ñuy wax liggéey na ba wàcc tey euh, tey ginnaaw si mën nañu wax tey ni nga ko waxee noonu la mu tàggat ay ndaw yu bari ñu si bari bari tey jaar ci loxoom génn ci ci ci loxoom euh, tey ginnaaw ëllëgëm ëllëg ñi nga xamante mooy bu taraxee tey tey tey tey tey tey taxawaay bi ginnaaw aatu ginnaaw si la mu defoon ci waroon def yëpp tey liggéey na ba wàcc euh, lan lan mooy wax bi foofu kaddu gi waaw foofu sax nag la suñu xel gënee dal ci ginnaawam parce que ay jàmbaar la ko siqal mm-hmm. mun nañ ci note ñu bëri ñoom Youssou Diop sa Youssou Diop mun nañ ci note ay gars yu bëri. Mm-hmm. yoo xam ni euh, dañ ko entouré ñoom Assane Mboup ñu bari ñoom Lamine Diouf bari nañ. ñoom ñëpp jàmbaar lañ. ndax kenn ku ci nekk prototype bu sa moroom nga. wallaahi wallaahi. ndax prototype ay nit ñu bokk moo tax ñu ànd bokk pas-pas. Mm-hmm. bokk pas-pas li koy andi mooy bokk xalaat. wallaahi bokk xalaat nag ci ne lépp lu ñuy mën a yëkkati rek. <laughs> mun koo mun koo mun koo mottali. wallaahi wallaahi dëgg la nag pertement bu rëy rëy la. ndax mooy li ñuy wax naan kenn ku ne yàlla day xool lu rëy mu bind ko. xool kur xool koo xam ne la mu koy bindee tolloo nag moom mu dénk ko ko. wallaahi. challenger bu mag la il n'a jamais reculé devant les bienfaits. ak lu mu rëy rëy rëy feet lu baax la rek man gëm naa ni moom aatu da ko doon jël lu positif lu jàpp lu mën a nekk la ndax jàng na ko ci sëñ Touba ak ci jàngale sëñ Touba. il l'a pratiqué ñi mu àndal aussi ils l'ont pratiqué tey la ginnaaw Hizbut Tarqiyyah di gën a dëgër ndax fii la histoire Hizbut Tarqiyyah tàmbalee. alhamdulilah. c'est le moment où démarre l'histoire de Hizbut Tarqiyyah. dëgg la macha parce que am na ñuy ñëw ëllëg. di bëgg yoon wu baax gis ni Hizbut Tarqiyyah tegu na ci ñu bokk ci alors seen histoire dana bokk parmi tey jii aatu sëñ aatu nan la doon doxee kan mooy sëñ aatu. billaahi wallaahi wallaahi. ñu génne see valeur. mais tey jii laa gën a wóolu gaa yi. billaahi. tey la sama pas-pas gën a dëgër ci waa Hizbut Tarqiyyah. tarkal laa gën a gëm ni sax nag ni nag. Mhm. tey gi moom day tàmbali. ndax lu Serigne Touba tegoon loxoom la teg ci loxoom tagati ci loxoom ba noppi di wéy di ci teg loxoom ndax mbiram la. macha allah ndax nañu àndee ak rasul Serigne Touba mooy ne saxaaba yi àndee woon ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam durant leur existence en exclusivité dañuy servir Cheikhul Khadim koo ci gis. gis nga moromam. koo ci gis rek gis nga moromam kon tey ginnaaw Hizbut Tarqiyyah avec les grandes personnes. intellectuel qui le gère tey ku mel ni sëñ Assane Mbuub gaa yu bari jàmbaar nga xam ne déjà euh, télé école la première télé éducative du Sénégal moo ko initié alors c'est un membre très fort de mm-hmm. Hizbut Tarqiyyah mm-hmm. Mm-hmm. ak ñeneen ñoo xam ne ay produits Hizbut ñoo xam ne aujourd'hui bëri na ñoo xam ne ñu ngi ci dans les grandes sociétés ay gravi pub moom gaa yu bari ils sont passés par là-bas wallahi a de grands ñoom ay ñi nga xam ne tey ji nekkoon nañ jamonoy sentel ah ay Tigo ah, ay ñu mel ni ay ay ay ay euh, kilifa yu bëree bari ñoo xam ne presque sama tur parce que damaa jaxasoo sax mais maa ngi sama xel. wallaahi ndax Atou Diagne demam perte bu rëy rëy la. billaahi ci surtout. homme de confiance kilifa yu bëri la. wallaahi wallaahi ndeysaan. kilifa yu bari te musta ci di bëgg lu baax te ma mën a wax ni li ma xam ci sax na lu gën a tuuti ma xam ko mooy lu ma fekkee mooy ba fii may wax yow nii bis bu set waaw añ gën a jóge isbu tarxiyya chaque jour que jëfee ñu andi ko ci kër sëñ Touba. waaw akbar te loolu dépense bu fort a fort la. chaque jour ngir ña fay ne ak kuy ñëw ak ku mën a ñëw ak fa mën a jóge ak ña nga xam ne sax dañuy nekk ci yeneen gox ya. te xëy na amuñu lu ñu mën a jëfandikoo buñ fa ñëwee sax mën nañ tibbal yóbbul lu ñu mën a yóbbu seen i kër lekk. wallaay de seen njaboot. loolu jaamu yàlla bu fort a la. wallaay bu kawe bu kawe. moom mosu jee teggi tànkam. bay nañ jox sëriñ bi liggéey nañ jox sëriñ bi dajale nañ jox sëriñ bi lu ñu am jox nañ ko sëriñ Tuubaa. alhamdulilah noonu lañ mës a doxe alhamdulilah te comme nag la yeneen Seydina Ababacar waxoon rasul gaa yi nga xam ne bi fi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jóge yoo xam ne Seydina Omar wala Ali. Mm-hmm. ku fi doon topp Rasulullah sallallahu alayhi wasallam day dëgg la yeneen la. Mm-hmm. dem na waaye képp ku fiy topp yàlla moom yàlla jugu fi. billaahi billaahi kon nag gaa ñi ànd nañoo sëñ aatu. Mm-hmm. exemple ak référence kon wéy ci lu baax moo am solo. yaakaar naa fii la seen pas-pas gënee dëgër. aw ma ay yaakaar damaa wóor. wallaahi tawakkal. fii la seen pas-pas gënee dëgër ndax xam nañ ni dinañ wéy ji sëñ aatu ñun ñëpp danañ dem. lay kon nañ leen gën a góorgóorlu kat lu baax li warul laal suuf. te lépp ci ndigal lañ koy defee muy ndigal xalif général des mourides te nee bu liggéey bi laal suuf. kon liggéey bi du mos a laal suñu ah. ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér. ci barke Sëñ Tuubaa ñu lay sant di la gërëmit bu baax. jërëjëf vraiment ëllëg Hizbut Tarqiyyah c'est là où son histoire commence. parce que au moins malgré que bëri na ay membres yu wàcc liggéey. Mm-hmm. mais nag le le le responsable moral de Hizbut Tarqiyyah sëñ Atou Diagne. wallaahi kii une icône kii une référence. wallaahi kooku ba génnee àdduna. ah danañ gëm ni kat kii. li taxoon mu jiite mbooloo mu to nii ba tey jii ñun mën ko indexé daa tegoon tànkam fu baax. Mhm. wallaahi ah, kon nag ña ca des moom foofu le nii rek la ñuy teg seen tànk ndax ñoom ñëpp ñoo bokk jàng. te ñoo bokk suñu gëm muy sëñ Tuubaa. ñun ñëpp ko bokk. alhamdulilah ah, vraiment jërëjëf. jërëjëf euh, jërëjëf euh, euh, sëñ Ahmadou gay Ndiaye ñu di ko santaat bu baax dégg ngeen tey mu vraiment mu def témoignage yu kawe kawe ndax xam nañ ko sax ci wàll wi bu baax a baax a baax a baax ndax tey liggéey bi nga yàgg liggéey tey tax moo tax ñu ne dañuy am ak yow liaison téléphonique jàmm ji info sa kër la nga xam kër gi bu baax waaye itam wax dëgg yàlla dañuy sottanteel di jël sa pas-pas sa temps loolu yëpp ngir rek bëgg bëgg bëgg yoonu sëriñ bi ndax ndox loolu la ñu tey moo tax suma xel dal tey ci témoignage bi nga xam ne ndax ba euh, ba ñu xëyee tey euh, ndogal gi dal tey sama xel ci yow la demul fenn ci yow la njëkk dal ndax dama gis tam ni nga pastefee ci yoon bi wax fa dëgg yàlla tam gis ni nga yàgg tam di liggéey communication bi kon donc mbokk di ko santaat bu baax waaye di la ko jaalee di jaalee di la ko jaalee Ahmadou Gueye Ndiaye di la jaale ki nga xamante ni moo di euh, Serigne nga ko waxee noonu rek la gën a a a a produit boo ci génne rek tabar tabarkàlla fu mu dem rek war a fu mën a joxe exemple bu yaato yaatu kon mbokk yi moom la ñu ànd nekkuloon ci ligne bi waaye tam di ko jaale xalif général des mourides euh, Serigne euh, Mountakha Mbacké xalif général des mourides di ñaan yàlla buur bi subhanahu wa taala yàggal ko fi loolu Mbàkke Balla waaye tam jaale bu baax a gis nañ tey ni aatu meloon ci wetam ak mbooleem euh, euh, xalifay Sëriñ Tuubaa nga xam ne fekk na leen fi euh, aatu tam tegu na ci yoon woowu waaye tam di dox ci ndigal waaye di doxal lépp li nga xam ni kilifa yi bëggoon nañ ko kon ñu di ko jaal di ñaan suñu borom xaare ko ci aljana a kawe wane ko Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mi nga xam ni moo taxoon mm-hmm. lépp rek mu di ko ci def bu baax a a baax kon mbokk yi ñu ngi nekkoon en mm-hmm. liaison téléphonique duñ ci yàgg lool muy Ahmadou Gueye Ndiaye di président sous commission intique